waxtaan ci ku tedd googu di Cheikh Abdoulaye Mbacké itam da ngeen am cër boo xam ne bii war na noo bokk di waxtaan waaye rawatina nag bu ngeen jógee ci ku mel ni sëñ Sidi di waxtaan ci ku mel ni Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma nga xam ne defar na fi loo xam ne walla yokk na fi loo xam ne luy defar di wéy rekk la sëñ lool ak defaram mu ngi dox ba ba ba ba léegi te kenn xamul lit fu mu yem ndax sëñ bi murit yëpp ak lislaam bépp amoon nañ toogaay yu baax waaye bi mu ñëwee da ko yokk ndax Cheikh Abdoulaye saa bu ma wax sa pas-pas yokku saa bu ma saa jëfit sa pas-pas yokku loolu nag yàlla ak yonent ak Sëñ Tuubaa rek ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo mën a fay waaye Sëñ Abdoulaye ku doy la ndax ni mu doon yare nit ñi ak ni mu leen doon defare dafa dafa àndoon ak teggin yu rëy rëy rëy ànd ak fulla ju rëy rëy rëy ak fit wu rëy sëñ Abdou Lahad ni meloon li mu doon doxal ci defar nit ñi keneen ku ko mosoon di def ñu ragal la waaye moom ñu eh, mu doon defare dafa dafa dafa dafa dëgër ba noppi lewet loolu nag lu jafe la waaw wax waxam ku ko mës a dégg eh, te newoo ci li nga war a nekk melul li nga war a mel ku ko ku machine boobu ku ko ku ko mënoon euh, faaw ngay ñi ngay defar danañ ànd ànd ak tiitaange mm-hmm. waaye seen i euh, doxin woowu la doon dox ba noppi da nga koy gën a bëgg. ndax dangay ngay yëgaale ci biir wax ji lawet gu mu lewet ak njëriñ njëriñ njëriñ njëriñ lu njëriñ lu wóor loo xam ne dafa lay wóor ne moom la la bëggal moo tax da nga ko danga nga ko daan da yoo xam ne yi lu jafe seen lot boole ko di dimbalee ci yoon wi ak fépp fu ne njëriñam daana fa dem boole kàllum yu baax yu de benn benn benn benn benn nga xam ne moom léppam laa jàpp sax ndax ku bëgg lu baax euh, léppi sëñam laat ngay jàpp lu mu mës a wax rek te nga bëgg lu baax rek da nga koy jàpp loo mës a gis mu def koy daf la daf lay yokk pas-pas rek moo tax yi mu yi ma yi ma doon jàpp ci moom bari na mos mm, naa ko jox itam nag benn kaamil boo xam ne euh, wax dëgg yàlla euh, gis naa ci baatin ña fekke woon ma koy joxit gis nañ ci baatin euh, boobu soxna moom yi mii ma nga fa ca jotaay ba ak sëñ ma sëñ dan mare ma daam ak El Hadj Cheikh Touré ba dëkk ngir ngi ne dëkkoon ngir ngi ne euh, ak ñeneen waaye bari wuñu woon lay soog a kër gi booba daf koy soog a sanc sa defar rek te euh, booba seng yi fi ne booba kër gi lépp seng la néeg yi mu def ci bi kees gu ne benn néeg la fa def ak benn mbaar rek lépp seng la ma ñëw jox ko téere bi fekk mu ngi toog ci benn canapé nii te ab tablier ci wetam euh, moo ko joxee téere bi jëm nag la téere ba téere ba euh, téeméeri këyit ak ñaar fukk la maanaam ici bu ne ñaari këyit laa ko def waaw maa ko bind waaw bi ma ko joxee mu xool xool xool ba yàgg mu teg ko ci tablier bi xam nga kees yi daana am ñaari kees yu sësaloo day am bunt ci diggante bi mu daldi di jóg kees gi newoon dugg ci geneen kees andi benn jaafira jaafira jaafira xam ngeen jaafira daldi ñëw fab téere bi prof ci jaafira ji mu yem képp waaw képp képp képp manqué wul di nekkul lu kii lu ñuy puus puusal muy muy ngir mu xacc wala wala mu dugal ko ci manqué dafa ko jee def mu mel ni moom lañ ko def mu ne la lii de doy na war mu ne jaafire bii de benn waaye ma ko fi joxoon rek moom ko ko fi indiloon ehm, ma teg ko foofu ci ci la wax buufee bi ci kaw buufee bi ba ba ma ko fa tegee maa ngi koy door a jëlaat nii xam nga loolu doy na waar. Mm, am na it ay baat yu ma fa yooyu moom dama koy bàyyi <laughs> waaye xam naa ne daal mu mm, ngi doon attaaya booba yor yor la nag mu naan tuuti dal li may jox kaas bi des bi xaaj bi mm. euh, def na noonu ñëpp daal di may xaw a mel ni ñu ci itewoo bëgg ma maanaam mosal leen ci sëñ sëñ sëñ dan mare madame moo ma ne bu ci bu ci jox kenn bu jox kenn de naa la rek ba ñëpp toogee nag ba ba dal nag mu ne ma <laughs> man di xanaa <laughs> man mi la xattili xanaa nag ma ma ji <laughs> mosal wala quoi ma ci may kenn rek moo bàyyi nu far ko kii rek boobu am na am na am na am na am na am na ci loo am naa loolu woo na benn bis ma dem fa moom am na keesu keesam gu mujj ga daal defe naa man néeg boobu sax ca la leen ne ca la nelawee bu néegu kaskaar bu mag la bu fekk ca gannaaw am na benn Euh, kii euh, pant pantre pant boo xam benn néeg la tabax waaye même mu féete nele benn néeg dang la am ñu ne fanaa dañ ko seng ci kaw xaw foofa nu dem fa waxtu xiwlu nag nu dem fa di xiwlu moodum alaaji moodum maamul ñang mi ma nga fa ak ñeneen ñaar euh, xam nga amoon na gisin woo xam ne ci ku mel ne seen laat xam naa ñu bari sax moom lañ amoon waaye man dama ko doon yëg ci sama dama ko doon yëg-yëg bu metti ba tax na bi bi nga xamee ne wóor na ma ne euh, barab bii nu ne noonu ñii doo nga fi ne ak seen laat loola rëy na ci man rëy goo xam ne biñ demee di xiwlu man xiwlu ma dama mos suut si jóg fekk moom ma nga ca néeg bale toog noonu noo dem fële ci ca néeg alaaji Modou Mamoun néeg dama yow gannaaw eh, añoo koy dama seet sa baay ba xam loolu la nu doyee mm-hmm. ma jóg léegi nag xam nga moom ngi toog ci bunt bi nii mm-hmm. tànk yi da nga ko seen waaye doo seen bu fekkee boo jógee nee nag da ko seen mm-hmm. waaye bu fekkee da nga jógee ci néeg bi ñu newoon fii rek ngay seen Euh, ba may demit ci moom it maa ngi dégg muy jàng mooy bu ca kaw jàng yi ñu ngi mel ni Fallou Ndiaye ñoom di jàng waaye gannaaw man ñembe bu maa jëm ci moom te may def nii rek bëgg mu gis ma def tappalay taalibe yooyu rek nga xam ne fexe ba fexe mu xam ne yaa ngi yaa ngi waaw waaw mu seen ma nag dama ñëwul Abdou sëñ Abdou la ma wax dama ñëw toog ci kanam mu ne ma ah, na nga def ma ne ko maa ngi fi rek mbakke di la sant di ñaan nga yàgg fi mu ne ma waaw maa la woolu dama bëgg nga bindal ma ab kaamil waaye hmm. dama bëgg nag mu doon bind mu dijj waaw ah, bind mu dijj ma ne ko noo ko bëggee rek mbakke dinaa ko def ñu daal di waxtaan waxtaan waxtaan ba ma ba ma taal samay loxo mu ñaanal ma ba may dem bay dugg ci bay bëgg a génn bunt bi ba génn ko tuuti mu waawaat ma ñëw mu ne ma na fexe ba mu doy waar de eh? nu mu doy waaw mu ne ma nu mu doy waar rek da nga doyee noonu waar wala ma hmm. waaye bi ma ñëwee fekk nag bi may dem nee naa sama maa ngi dem belal sëñ bi ma woo bi ma ñëwee ma jaar ci néegam na ko man de dem naa ba ñëw mu ne ma ah, ma ne ko ah, ah, maa ngi lay siyaare xam ko waaw yàlla yàlla na ko siyaar bi mu ne ma mu ne ko man lay sëñ bi dafa ma dafa dafa ma doon woo ngir binduloo ma ab kaamil mu ne ma ah ma ne ko ah loolu sant yàlla ma daal di ma daal di ma daal di ko waaye ndax booba nag fekk na mos namaa dem fële fu ñu xam dina mbay ca njub wetu njub ngent àndoon ak saam maam Mor sama rak euh, ma gis nag muy barab bu bari ay mbañ fa la mm-hmm. xam naa ne mbañ fa la ah. waaw xale euh, ma ne ma jàll li ne nag foofa laay dem ndax bant yi ma soxla dal mm-hmm. foofu rek la la la mën am bi ma ko waxee daal sama ndey ni ñokkete ci lal bi fi mu fi mu toogoon mm-hmm. dal di dem ci wuti armoire am dal di koy tijji génn ci benn benn benn euh, benn sayum bañ fa la boo xam dañ ko dagg ba mu jekk rafet ma ne ko ah, waaw lii lu nga suñu Saam moomu soxnaam euh, soxna mayee ko wàcce woon may galas yàlla dogal bi muy am doom fekk soxna si mu ngi mu yebal fa sama ndey ngir mu mu ngénte ko ci Madina boobu googu ma naroon dem. Madina Mbay waaw. Ah. mu ne ma ne ko lii nag foo ko jëlee mu ne ma kii de Madina Mbay laa ko jëlee. loolu <laughs> eh, xam naa seen laata rek. loolu daal ñett ñaari dal la def ba xare eh, ñaari dal la ca def bu dijji lool. ak bu bu yem bu xaw a dijji nga xam dañoo ëppante rek ci biir kër Sëñ Fallu laa ko tam laa ko defee a Mbàkke mi mu ne bëkk nag moom a ubbil néeg bi ñu defar ko dala ko moom seet lal fa yi fee lal yóbbu daay yi ma defar ko fa defar yëpp ba mu jaar yoon ma ma naan ni nag léegi ñaari dal yi naa ko yët sëñ bi mm-hmm. ba xam bu ko ci bu ko ci gën a kii di loo ñëwee fekk mu toog moom itam yoon woo moom moom dong laa fekk ci ci ci kii bi. daf ko ubbi rek ne ma ah suñu suñu mi doy na waar de. te daal daanaka looloo tax àggut doy na waar yooyu mu wax daal. <laughs> ma ne gannaaw xas na ko wax rek. naa non mu ngi ko bind ndeysaan. waaw waaye doy na waar ji moom. jam waxoon moom wax na waxat na ko ci lan waaw doon defare nit ñi ak leen doon yare te loola lépp bëggal nit ñi lu baax rek moo tax yàlla dogal mu mu mu mu dem euh, sëñ Sidi mii fi ne ñëw rek di moom fulla jeeg ak taalu begeeg mbaax gi lépp mu ngi ci ci moom mi moo tax ma ma bëggal ko sama bopp moom fii si di fa demee nag bu ma fa mujjee rek ak léegi ma ma ma ëppul ñaar fukki ma ci biir koor gi la waaw ci biir koor gi rek ci bis bi la waaw bisu korite gi dem naa fa moom it ndeysaan mu bëgg ma lool ba ma xam ba ma yëgal ko sama bopp ko di ko ñaanal mu yàgg fi nag bu baax di ñaanal euh, ku tedd ki sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy sëñ Tuubaa mu yàgg fi moom it ak njabootu sëñ Tuubaa yëpp euh, di leen ñaanal euh, te nga xam ne sama wax ci lu mel ni ñu koy dégg du bari waaye lu jóge ci sëñ Sidi. jaar ci yéen ñëw ci man. Euh, du ma ci ñemee gaa dem ma ci boole ñaari du ma ca du ma sañ a waaye euh, du ma bëgg gantu itam. waaw du ma ca bëgg gàntu. duma ma ca du ma ca ñemee gàntu. ndax ndigal la. am na ko ma si waxtaanal benn bis. Euh, suma xaritu tubaab bu fi ñëwoon. nu dem kër sëñ Saliou moom euh, di ko siyaare ji euh, fekk moom moomu mu am tappi jullikaay bu mu jënde woon France euh, ñëw na ngir ngir nu yët ko bi bi ñu demee fekk nañ fa sëñ Fallou mu sëñ Soyibu sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ bi ñu waxtaanee ba noppi sëñ Saliou wax sëñ Fallou am na benn néeg bu ne ci gannaaw tabax ni mu ne nañ ñu yóbbu foofa mi nag sëñ ba sëñ Saliou sëñ Fallou sax di tooñ naan ah ndaw ngaan guy neex nga ganale sa doom waaw dana war a neex de <laughs> léegi ban demee nag bay xiwul nag di waxtaan nag ki baaxu uh, njabooti sëñ tuwaay rek mm. bañ demee bu ki man li ma la li ma xam ci ñoom buñ ma ne woon naa leen jàng bu mokkal leen ñoom ñëpp ku ci ne ma mokkal na ñoom mën ne su leen a mokkal sax hmm. waaye ñu jàng leen ba ba ba ba xam ba xam ci ñoom lu bari ma ne ma ne ma ne leen keroog man buñ ma ko waxoon hmm. duma leen jàng ñoom ñëpp kenn rek laa ciy jàng hmm. bu mokkee rek danaa mën a tariñ ci des waaw kon diggante sëñ falu ak ak Blaat noonu rek la demee waaw koo ci koo ci mokkal rek mokkal nga ki ci des ba ñoo bokk luñ bëgg bokk luñ bañ liñ bëgg ñoo bokk nuñ koy bëggee liñ bañ ñoo bokk nuñ koy bañee loolu loolu la waaw moom mës a wax euh, day yokk sa pas-pas mës a def day yokk sa pas euh, wax naa la sax ci tàmbali bi la moom ni mu doon defaree ni mu doon yare euh, daawul gaañ kenn maanaam nga dégg ko mu. blessé la wala wala yooyu dawul moom foo ma sa dégg waxam dëgër dëgër dëgër dëgër da nga ciy bég bégte la lay jox xam nga xam nga xam nga ñu bare bari buñ la dee defar dañ lay jaarale ci yoon yoo xam ni lay metti daanaka bu ñu la ci jaaralee sax lañ la lañ lay bëgg a defar lañ la doon jàngal sax daanaka doo ko mokkal ndax day <laughs> meen waxin wa ak doxalin ak melo day metti si laat moo defar eh, nam lay defare nga bég ca boole ca ak bo boole defaru ca loolu moo moo mën a kii eh, Cheikh Abdoulaye Mbacké dafa doonoon jëmm yoo xam ne yi daal dafa doy waar lool eh, ba tax na ni mu daan yare nga xam ne ak dundam yépp liggéeyam mooy bëgg yar nit fas yéene yar nit ñi defar leen rek mooy ci yoonu taalu bi ak yoonu lislaam loolu moo doon liggéeyam waaye lu mu doon yare ak nu mu doon defare nga xam ne loolu ay waxam loon ay ndimbalam noonu la meloon euh, ndax nun dañ daan faral di toog ci buntu kër sëñ Baara am na garab gu fa newoon foofu nga gis jàkkee sëñ Moussa ji nekk fi sax fi fi fi kër sëñ sëñ Moustapha moomam foofu la woon euh, nga xam ni boobu tukki xewagul boobu mbàkki mbàkki yu ndaw yi daanaka ñëpp Tuuba rek la ñuy ne amuñu daa boobu tukki xew tukki yi xew léegi xewut booba nga ne buñ xëyee rek dañuy dem ci kër mel ne bokk wala dem daje fenn di waxtaan ci sëñ bi di waxtaan ci yooyu rek moo doon booba alaaj baara nag bëggoon nu nga ne ku ci xëy rek li ngay li sa xel di nekk mooy dem buntu këram toog xam nga bunt kër sëñ baara boobu nag ak fi fi sëñ bi amoon na buntu boo xam ne bii eh, ca ca ca koñ ba la ne woon jàkkaarloo kër laaj baara lan fa daan toog xëy toog suba ba une heure waxtaan rek waaye léeg-léeg gis benn remarque bu ci bu fees rek ceeb walla dugub walay walay walay bant walay seng ñëw arrière ba dugal genn wàll gi ci biir kër gi rek ñu wàcc déchargé euh, yooyu remarque yi daan wàcce nag sëñ bi amoon na ci këram ay ay oto yu ndaw yu ñuy wax quatre cent quatre camionnette ni remorque yi déchargé noonu lañuy ñuy chargé ñoom itam di dem da ngay gis remorque oto boo xam ne bii bu ndaw day chargé ba nga xam danga da nga naan ci oto bi léegi léegi léegi léegi mu laal pënd yi ndax ndax chargé bu fees rek dal di départ te yu bari ñoo ñëw woon ci kër bu benn départ ba dem rek ba ba balaa bu dellu si rek tasanteeg benn di départ. loolu moom moom euh, noonu lañ noonu la oto yi doon def. te li ci doy waar mooy da gis oto yoo xam ne dañuy sarse dem léegi del si léegi nga xam ne yooyu soriwuñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dem ci ñi gën a jege waaye léeg-léeg daa nga toog itam nag nga gis oto bu sarse nga toog fa ba dem te du del si nga xam ne boobu fu sori la jëm bu ko defee ci ngay xamee ne kon ndimbalam yi mu daan def mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi ñëw dem fu jege waaye mu ngi dem fu sori loolu loolu loolu ñu doon ko nu seetlu mu eh, ñu sar si ceeb ba fees dem sar si seng xam daan dem ci ñoom mooy ñi nga xam ne la sëñ bi du yóbbu dañ koy soxla mënuñu koo ñàkk te amuñu ko xam nga kooku bu bu oto jékki-jékki kala sane ci buntu kër ñu ko sëñ bee fi yónnee xam nga kooku eh, lu rëy fekk jóge na ci moom noonu euh, moom la moom la doon def te loolu oto yi doon yóbbu nga di ko nga di ci teg sa bët lim daan def ci dimbal loo xam ci poos lay dem moo te xam nga ku mel ni sëñ Abdoulaye nim nim nim nim nim nim nim amee woon itte ci defar nga xam ne fu mu toll mu ngi ci kooku googu jot euh, mu boole ko dafa dafa doy lu jafe la waaw dafa boole woon ñaar yëpp loo ci natt rek mu tolloog moroom li mu doon defare li mu rëy rëy li mu doon dimbale noonu la toll moo tax mu koy ñaanal daal yàlla yokk ay waaw ñi nga xam ne ay néew doole ne nekk ci biir kër gi mbaar yi foofu ma sa dem da fekk mu fees dal ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee kenn xamul ñooy ñan nekk fu fees dal rek man danaa ci nett loo xam li may wax ne sama tur li tax mu bari ci lu ma lu ma dund lay doon xam nga li nga dund nag boo bu fekkee moom nga bëgg a wax faaw nga faaw tur génn ci am na benn tabaski boo xam ne euh, ba ñuy waaj a julli ji xam naa boobu ju boobu boobu jàkka ji julli bi fees na penc meeg mbedd yi yëpp fees nañ xam nga bobu señ bi dem rek lañu mo dess mom la ñepp di nek ben way jek jek rek ñew ak ak bu waxo ak ak fitna andi yor xar mo xal ni tollu jaar ci buntu kër sonu may bi fofu ñew dug nga xam bi muy yew xar mi mu ngi yàkkamti def ci ñi wara gungi gunge bi la bok te bëgg départ señ nga xane yoonu digënté kër señ tollu bi ak kër señ Abdou Borom der bi bi mu yewé xam fofu la daw jaar. Euh, diggante boobu man benn waay la laa laa ko laaj ku ne woon foofu koo xam ne fekke na jotaay ba mu ne ma sëñ bi de moo jékki-jékki laaj ndax yóbbul nañ la yóbbul nañ Karim am xaram ma xam ne xalif général de Mouride buy bëgg julli ji oto bi gaare nit ñi koy gunge ñëpp taxaw jàkk ja fee ba jullikaay ba fees na fépp fees na mu fàttaliku loolu kooku xam nga ni bàyyiwul dara noonu la meloon lépp lu lu lu lu lu baax du ko fàtte waaw loolu daal ah, moom moom moom xam naa ko ci buntu kër laaj baara boobu nu toog doon toog itam noonu ma ko waxee rek daf noo bëggoon lool ndeysaan ñuy nu bëgg ko di fa dem boobu si boobu suñ baara doonagul sax xalifa suñ Fallou boobu suñ Modou fi ne suñ Modou yi bëggoon nañu waaye responsabilité xalifa gi mayu ko woon mu mu mën mën di toog ak moom lu lu bari waaye léeg-léeg nu ko rek dama fa siyaare ko léeg-léeg mu woo ci kenn fàttaliku la war la ne mës naa ko wax suñ Modou ne ko damaa bëgg a def commerce suñ Modou Bousso mu ne tekk ba yàgg mu ne ma ah doomi suñ Fallou de mën naa bañ a def commerce doomu na jaamu yàlla rek mu moom boo jaamoo yàlla rek bi ci des bàyyi dana ko dana ko dana la ko jox sëñ Modou mos na maa xam nga am na solo. xam nga sëñ Blaat ku mel ni sëñ sëñ Blaat day jàngale. yooyu ñu ñu ñu di ko ñu di ko ñu di ko def ci ñoom lañ koy jànge ndax niñ koy jànge ci ñoom mooy ñoom dañoo baax ba xam nañ ne luñ def rek lu baax la. moo tax boo bëggee ne ci yoon wi te lu lu mu lu mu tuut tuut nga domp ko ci sa bopp def ko ci yoon bi da ngay xool ci ñoom waaw xalif général de murit itam dafa dafa dafa euh, euh, man euh, dama mës a toog fi ba yàgg xam nga mbàkki mbàkki bu sëriñ bu ndaw rek day day responsabilité lay jëkk am ci wërsëg da nga am ndax responsabilité yi moom mbooy judd tuuti ba dem def mu tàmbali te wërsëg bi nag mom du du du du gaaw <laughs> nga xam foofu da ngay jaaxle di ba mos naa fee toog ba yag ma ne damay dem rek hmm. waaw damay dem ba fu ma dem ba xam ne na rek ma tok fa nga du ne du boolewuma ci ak wàññiku dem waaw dem rek la la la la mo don sama programme waaye bole wu ko ci ba ma bu Burkina Faso guddi gi fa jëkk teud nga ma fa jëkk fanaan sëñ Blaat feeñu waaw maanaam gént lañ koy tuddee waaye am na gént yooyu ni mu lay dikkee da ngay xam ne lii lu ci ci ngay jëkk ci laa jëkk a xamee ne xalif général de Mouride yoon wi da koy da koy def nii mu ne ma foo jëm ma ne ko aman ah, damay dem mu ne ma wàññikul waaw bi ma xëyee sama yaram wi dafa fasu ma fas yene wàññiku waaye bi ma xëyee ki sangu dal di dal di dal di mu mel ni Lima li eh, li li ma doon yek ni li li ma doon yëg sama yaram dafa deñ ma décidé waat foofa ngir jàll te décidé war na wàññiku ndax ndax li ma yëg ci guddi gi ba ba ci guddi gi ci topp eh, sëñ Fallou ak Cheikh Amadou Bamba ñoo ñoo ñoo ma feeñ ci guddi gi ci topp rek xam nga sëñ bi moom def na responsabilité moom moo jëkk a ñëw moom Cheikh Abdoul Ahad waaw sëñ sëñ Fallou Cheikh Amadou Bamba mel ni dafa lu ne ci miir bi taxaw sëñ Fallou jàll si ba ci lal bi ma nekk téye ci téye ci tànku lal bi dama foo jëm ma ne ko man damay dem rek xam xam fu ma jëm man ne ma wàññikul li nga fi fi nga jëm da nga fay fekk li nga bàyyeeku gën waaye waaye njaag moom dafa dafa <laughs> dafa daal di àdduna ne bàyyi ko rek mu dem bu bu jógee fii te jëmul Sénégal eh, fa jëm du fa yegg loolu la wax moom moom loolu la ci àddu moom sëñ Tuubaa loolu la ci wax rek gisutuma leen keroog Ndakaaru laa fanaan ah. xam ala am na fekkoon naa fa benn doomi El Hadj Allé bu baax ndeysaan ku ñuy wax El Hadj Samb Gueye bi ma xëyee ba woo ko ne ko wutal ma billet Sénégal mu ne ma ah, bi ku eh, baax moom moo daggal billet ma dal di ñëw fanaan ci Ndakaaru xam nga waxtaanu télé ak ki dafa ki waaye lu lu gudd la ba sama ñëw del ci Touba. gudna nak ndax bi ma sëñ sëñ bi waxe ak man dafa japp sama yaram ba bi ma ñëwee ndakaaru bàyyiwuma munu xam naa ne lañ bëgg lañ ma lañ ma lañ ma fasiyene yobbu mom waye bo boobu gëj naa fii itam gëj goo xam ne munu ma woon ne rek dal ñew ñëw ci laa mooy nekk googu ma nekkoon Thiès ci keur Assane Mati Ball bobu lepp maa ngi maa ngi maa ngi war a ñëw te munuma munuma gëdd ñew ma tok fa ba yag ma delu ci ma sok ak ci Touba togaat na fi ab ab ab ab dir lu ma ñaar ep ñet ñet ñent at yo xamni juroom juróomi at dem Dakar daanaka waaw ba mo demee ba ba loola jeex tak nak ci sama yaram ci la soga a demaat Dakaaru moy mooy gi mo fa nekkon noonu te muy joon ñibbisi rek nga xam ne wàññikul googee daal moo ma delloo si waat ba ma ba ma toog Tuuba li tax mu am solo euh, dañ ko dul baax rek téye ko mu yem ci ñoom dañ koy jàngale euh, boo dee ku ku ku mën a jàng nag di di jàng la ñuy nañuy mel ñoom euh, lépp ngay jàngale fim ne bu fekkente ne yaa ngi def dara ku mu nekk ku nekk ci yoon wi ku nekk tey def lu baax ci ñoom ñooñu nga koy jële buñ dee buñ dee wax lu baax ci ñoom ñooñu nga koy jële loolu ñoom loolu mooy seen seen seen liggéey dañuy dañuy defare luñ moo tax luñ def rek euh, boo ko boo ko boo boo boo dee boroomu euh, xool da nga da ngay tibb ci la ñuy def di ko téye fi mu nekk nii mm, loolu euh, defar gi ak ak ak kii xëy na yàlla dogal na ma siiw ci waaye daanaka euh, marabu yépp ci loolu lañ nekk xëy na ëppali ci noo koy defe wala wala loolu rek moo ci nekk waaye kenn ku ci nekk lum tut tut tut ci loolu la ne dimbalee ci jikko ak ak xiwal ñoom ñëpp ci lañ nekk képp koo xam ne kii mës nga euh, xam nga sëñ Fallou bi bi bi bi bi Lamine ñëwee ci li ma dégg sax boobu man yooyu yëpp maa nga kër sëñ xaas xam nga foofu laa fete woon moo fa jógee ca euh, daara ji rek laa jëm waaye euh, ñu ma doon ñu ma doon dégg seen nettali itam Euh, ay nit lañ ñoo xam ne ñi daanaka lu ñu la wax moog loo fekkee mooy ñooy ñooyam ndax euh, am na wax yoo xam ne yi euh, ci ku mel ni man mm, boo ko déggee du waxuma sax nettali ko waaye da nga ko dul gëm sax waaye am na ñoo xam ne lu ñu la wax rek dafay mel ni loo fekke ndax nañuy nañuy mel ak fa fa ñuy fa ñuy toll ci dëggu moom mooy tax waaye dégg naa Lamine Gueye ñu wax ne bi fi ñëw moo fi njëkk a ñëw bi ñuy campagne mook Senghor am nañu sëñ bi jëflanteeg moom ba ba ba ba Lamine xew a kii waaw xew ca xew ca nee nañ ma ñaxtu nañ ca sax tuuti ñaxtu ba xam naa ko xam naa yi xam naa la sëñ bi def ak ak lépp waaye loolu daanaka dëddul jaar di ko di ko di ko leeral waaye Senghor eh, bañ ca tegee ab diir Senghor ñëw bi mu ñëwee mm, sëñ bi dalal ko eh, kër alaaji Mor Tuut ñang bële ci Mbàkke eh, fa la yendu sëñ bi Mor Tuut ñëw sëñ bi jox ko ab lim mm, jox ne ko jox ko Senghor ne ko mag ko dimbalee ci ci ci campagne bi ba ñuy ba Senghor ba mu ko joxee ba Senghor di tàggoo si bi mu ñëwee delloo sëñ bi xaalis bi mu ne ko Mbàkke sa ñaan rek laa bëgg sëñ bi ne ko ah, man de sëñ Tuubaa rek la am que maa ngi ci liggéey euh, jumaa ji bu fekkee boo toogee dimb nag ma ci dimbale di dana danaa la ñaanal da jot ci li nga bëgg noonu waxante nañ ko fi sëñ laat tànk yooyu nga xam ne nga xam ne sëñ bi sëñ Fall lu taxoon mu jàpp Senghor mooy jumaa ji rek liggéey bi mu ko bi nga xam ne te ndax <clears throat> ba mu toogee la mu ko la mu waxoon la Senghor la mu waxoon loolu rek la def waaw moo taxoon sëñ bi jàpp ko bi laat loolu ñu ngi dégg ñépp ci ci ci waa nguur gi koo ci dégg ñu ne waayam la xamal ne kuy kuy ku la la la tax mu doon waayam mm-hmm. mooy jàppale ko sëñ Tuubaa rek mm-hmm. à peu am na waxtu mu fi waxe ne euh, nañ joxe ndigal ci Abdou juuf waaye boobu dara taxul lu dul Abdou Diouf euh, jàpp sëñ Tuubaa rek li de am yu muy def ci dëkk beeg waaye boobu jàpp sëñ Tuubaa it moom daal ku ñoom kuñ jàpp rek sëñ Tuubaa tax waaw kuñ xaritool rek sëñ Tuubaa sëñ Abdoulaye Doy moom benn gi moom dafa am baat jum ci waxoon yu leer yoo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa ku ko dégg rek xam ne leer na ñu doon wax ci ñaar ñu bokk ndey xam nga ñaar la nga ñett waa ñett ñu bokk ndey nga bëgg a tam ki bàyyi ki ci des hmm. Eh, loolu mënu mënu mëne su ko dégg waaw ah, waaw la ko waxee ah, te boobu lim ci jublu mooy bëgg a wane ni ñoom ñoom lislaam bépp ñoo ko bokk eh, kon gannaaw ku ci ne yaa ngi doxal la ngay doxal mu rafet ci lislaam eh, boo ko bëggee tuutal ci ay mbiram wala yooyu kooku yenwul maanaam loolu la sëñ bi wax na waaw léegi euh, moom nekk na fi daal euh, doon sëñ Touba mu mat sëkk ba jógee fi rek euh, ñëpp ko gërëm. ah man li ma li ma doon wax daal mooy. xam nga yoon wi. lu diis la. ku ñuy ku ñuy koo xam ne kii doonoo sëñ tubaab toogoo ci daram bi doon ko ndax sëñ day yoon bi moom hmm. euh, sëñ Tuubaa li mu ci defar dafa bari hmm. te ñooñu ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ñu ngi defar hmm. ndax ndax xam nga sëñ bi euh, bu lay bu lay bu lay bu lay euh, bu lay defar bu lay bu lay bu lay tey tibb ci boppam def ci yow bu ko defee loola moom ngay mën a doxale li nga war a doxale li mu bëgg waaye boo boo demee ba doon euh, toog ci der bi nag moom ngay doon moom mooy moom léppam lay fab def ko ci yow boo demee ngay moom waaye yoon wi ne ku doonul sëñ Tuubaa bu bu bu bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk nga xam ne dara dara dara dara dara desut doo mën a téye yoonu ñaari fan waaw mënoo ko téye ñaari fan moo tax sëñ Muntaxa mii fi ne fi ne ñi wax na ba ci sëñ monsieur di Muxtaar bi ci yàlla yokk leeram ak ñu ñu ko jiitu ñëpp musuma euh, nangu euh, diw mi fi nekkal sëñ Tuubaa la diw sëñ Tuubaa rek laay waaw ko fi mën a nekkal rek euh, man man sëñ Tuubaa ngay doon ci man waaw du ma wax ne yaa ko fi nekkal du du moom dama la koy tudde rek te xam ne moom nga ndax xam naa ne summiku na ci yow léppam waaw te boo gisee ku ci ku fi ku fi nekk xalifa euh, doo juum benn yoon euh, li nga war a doxal da doxal. Mhm. mooy sëñ Tuubaa mi nekk ci yow ba jeex tàkk moo tax. waaw tax du juum. waaw loolu moo tax. ay murit lañu yoo xam ne sëñ Tuubaa rek yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañu ko def.